maa ci seen monsieur le maire Talla Sylla invités maa ngi ci seen parent bi bu ci seen xalifa honorable député monsieur Abdou Mbow grand monsieur boo ko seen muy dem lu liggéey Thiès rek moo ko ñor seen sele demi zone 5 marabu bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko sant yàlla vraiment di di gërëm jeunesse bi yëpp muy muy jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñaari finalistes yi muy Sampaate di Diamaguène muy yeneen euh, sportif yi nekk ci biir Thiès muy population Thiès bi mais surtout suñu gan yi surtout suñu honorable député yi nga xam ne ñëw nañu ànd ak ñun muy euh, le président Abdou Mbow muy l'honorable député Maymouna Sall mais muy surtout aussi les conseillers de la ville de Thiès qui sont ici gis nga Thierno Basirou Bopp mi ngi fi donc Ibrahima Ka ñu ngi fi ñeneen a ngi fi tey jii ànd ak ñun euh, direction mairie yëpp ñu ngi fi euh, ñi nga xamante ne suñuy am di jàmmale ñu tamit ñëw nañu ànd ak ñun euh, ñu bëgg mbir mi nekk fête ñoo ànd ko ak ODCAV ànd ko ak ñi bëgg sport bëgg football ah, ñoom Clédor Fall ñoom ñëpp ñëw fekk si ñu ah, ñoom Pape Ngom nekk ci ah, vraiment fédération bi ñoo ñëpp ñëw teewee yëf yi am naa yaakaar ne fête bi dina dina rafet dina jekk et que buñ fi jógee Thiès rek lay nit ñi di nag waaw xam nga dañuy wax toujours vivre ensemble te vivre ensemble c'est l'inclusion maanaam ñëpp bokk exclusion amee rek vivre ensemble amul te yàlla moo defar doomu aadama yi bind leen ñu wuute waaye kenn gënul kenn ñu bëgg rek di wax nit ñi ne nañu bàyyi nekk loolu lañ ci jublu euh, di leen wax ne ñoom ñi euh, muy xalifa muy bukunta ñoom ñaan ñëpp kenn ku ci nekk ku nekk xam nga ni ku bëgg sport la ndax fu nit ñi nekk ñu nekk fa ak ñoom alors ñu tànn leen ci biir ñeneen nag on aurait pu ñeneen yàlla dogal ñoom bokk nañ ci ñi gën a ràññee ñu tànn leen ñu représenter tous les autres pour lancer un message mooy xamal nit ñi ne kenn warul boddi kenn kenn warul exclure kenn kenn warul discriminer kenn ndax ñëpp a bokk c'est la république c'est ça la démocratie c'est ça l'inclusion c'est vivre ensemble donc